ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si wala si bitim da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production mën a xam ne dugal a xam ne Cheikh Blaat daal wax ne addiya loolu sax Cheikh Mouhamadou Diop Dagana ca Irwaawu wax na ko ca ne boo ko masaa jox addiya bu dee kaamil dana ko téye ci loxoom waaye boo dee bu dee leneen bu dee xaalis wala leneen day wax tegal foofu Sëñ Tuubaa itam moo njëkk a sos li ñuy wax daaray kaamil nga xam ne bërëb la koo xam ni dañuy jàng alxuraan guddeeg bëccëg bi dañ ci jàng ñeenti kaamil ci di ko guddi gi ñuy jàng ay kaamil yoo xam ni duñ ko xool njëkk muy dem ci géej gi ñaari kaamil lañ daa jàng bis bu ne ñoom waa daaray kaamil bi mu demee ci géej gi la ci borom daal moo te yeneen ñaar ak saraatantu na ñuy def suba gi ñu jàng ñaari kaamil ginnaaw tisbaar ñu jàng benn ginnaaw sëñ mën leen nee na li ñuy jàng dañ koy tari du lu ñuy xool boo xam ni alxuraan kese lañ fay jàng loolu la ñuy wax ci lañ ko njëkk a xamee sëñ Tuubaa mooy jëmm joo xam ni mësta nangu nit di wecc ko ab kaamil mu bàyyi la nga dem loxoy loxoy neen faw mu jënd ko loo ko jaayee kaamilit mu jënd ko Cheikh Mouhamadou Lamine Diouf Dagana wax na ne benn bis jënd na ci juróom-ñetti téeméeri kaamil ndax jaaykat yi dañ ko mujj xam xam ne moom du delloo kaamil te loo ko jaayee mu jënd ñuy def kaamil bu ñu am indi ko te booba nag kaamil bokkut ak yi ñuy móol boobu dañ koy bind ci loxo am na naaru ganaar boo xam daa wax ne naaru gànnaar bi ngi tudd ci Ahmad ma mi ngi tudd Cheikh Ahmad dafa wax ne man ginnaaw man damaa bind te Sëñ mi ngi fii te moom kaamil boo ko jaay mu jënd loo ko jaay mu jënd ko man dootuma wut métier damay bind kaamil rek jaay ko bu la ma jeexee mu bindaat beneen jaay ko rek loolu mooy sama métier maa in ubaali ida ma danna du maali anni bi ujrati xattil mushafi lgaali maadaama xawsul wara xayan yubajjiluhu xaqan wa yabzulu fiihi gaaliya lmaali waaw wax ne kaamil yi bari na ci këram lool ay junni junni ñoo fi ne waaye bis bu setet ay junnee koy dikkal ci ay kaamil ca mujj xasida gi nag mu ne ko nag yow wuute nga ak nit ñi yaa man yu jillu kitaaballahi jalla kama yu jillu mawlaahu xaqan aya ijlaali ma anta wannaasu id tasaa id tasaa wa tajhadu fi naylil maali wa hum yasauna lil xaali ne ko yow dangaa wuute ak nit ñi ci ni ngay tarare alquran te jëmmi suñu borom tabaaraka wa taala tax danga nga wuteeg nit ñi ndax yow ëllëg moo la tax a jóg li ngay sol lépp ngir ëllëg la nit ñi nag li ñuy sol lépp ngir tey la sabab bi mooy idhum yabiunahu xubban li aajilihi wa anta tabtaahu li xubbika alwaali ñoom dañuy jaay alxuraan ngir am alal alali adduna yow nag ngay jënd maanaam ngay joxe alali adduna ngir am alxuraan foofu nga wuteeg ñoom wax ne loolu xar baax la boo xam ne mësta am ca la ko jiitu woon wax na ko ci bërëb yu bare bare wax na ne qiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi da sidqi jàng gi ma koy jàng mooy sama koom mi gën a rëy mooy sama daraja mooy sama teraanga koom sëñ bi kenn ku ne ci noonu li nga am ci xaalis fa nga koy denc maanaam mooy loolu mooy sa koom mi gën a rëy kenn ku ne ci noonu am nga loo gën a fonk te mooy xaalis bii nii boo leen ko bari la ci wut foo koy dugal nga xaalis foo koy dugal moom kenn du fa dugg moom wala di nga ko tëj tëjin woo xam ne moom kenn du xam na nga ko tëjee Sëñ Tuubaa dañoo li mu gën a fonk mooy mooy mooy koomam mi gën a rëy mooy alquran ak xadis kanzil kitaabu wal xadis wal adab laa jamcu fiddatin wala jamcu dahab wax na ne itam ndono li mu fi bàyyi ñu di ko donnoo ci moom wax na ne mooy liggéeyal alquran ak liggéeyal xadis yonte bi bi xidmatil kitaabi wal xadis yasbutu laa bi dahabin mawrusi wax na sax ne sama diine mooy alquranul karim diini kitaabul mustafa la gayru wa yantaxi ila siwaya tayo kitaabuka diini wa xilli wa munisi hadani bihi lhaadi wa nafsi bihi zakka wax na ne moom laa def sama wird yu may wird te mooy kitaabu rasulillahi wirdi wa raaxati wax na ne itam damaa moy ci alquran ni nga xam ne borom bët yu muur yi nga xam ne du gis ni muy moyee ca ka koy wommat noonu laa moyee ci alxuraan maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil qaaidi l basiri l muin masaktu bil kitaabi daa iqaama li salawaati xamsi bi dara wax ne alxuraan dara mënu koo wuutu ci man laa abtaxi dëhra bil quraani min badali dara wax dara giñ ci yàlla sax am na fu mu giñee ci yàlla ne giñ naa ci yàlla du ko bàyyi mukk moom alxuraan duñ teqali ko safat xayaati bi kitaabillahi walastu taarikan lahu wallaahi danaa wax ni alquran aljana la ci man ni aljana neexee bànneex ba ñu yëg fa ajana moom laa yëg ci alquran quraanu rabbi lii janna wa innahu lii yi junna moo tax mu daa wax ne waxtu wu ne dinaa koy jàng guddeeg bëccëg duma ko wutal waxtu li maa ngi nekk ci kaw suuf urattiluhu maa dumtu xayyan wa artafi wa mooy sama ñam xam ngeen bi mu nekkee ci géej gi dafa at yoo xam ne kenn xamul lu muy dunde ndax li ko tubaab bi doon jox te daa ko jox mbooleem ñi ñu jàpp nungu ko woon a jël waaye gis nañ mu wax ne man su ma jàngee alquran moo xam sumun laa jàng wala ruboxo wala nisf wala sama waqaf dama daal di suur mànde mel ne damaa jëfandikoo ida qaratu sumunan aw rubua aw nisfan aw waqfan rawitu musbaa moo tax dara wax ne jàng alxuraan xéewal la gu rëy rëy nguur gi gën a rëy ci àdduna mooy jàng mën a jàng alxuraan te di ko jàng inna tilaawatal kitaabi mulk wa huwa liman yabghi najaata fulk moo doon ay bagage am gën a rëy wax ne itam yërmaane ci leen ko yaakaare kitaabun bihi narju minallahi rahmatan walan tuubihi dunya wa uxra min al karbi tagg na ba tey alxuraan xasida goo gis ci xasidaam yi bu taggee sunu borom tagg rasulullahi faw mu boole ci tagg alxuraan mën na ci jël rek lu mel ne jësbul xulóob ca mujj ga akrim bi daalika alkitaab fiihi hudaahu wa sawaab fiihi alxitaabu waljawaab min rabbina dil qidami huwa shifaa min kulli daa liman alayhi ictamada wa man abaahu turida daa xasratin wa nadami wa kullu saxsin alxada fiihi walam yajtahida bi tawbatin laa qaarada min rabbihi lmuntaqim wa huwa alladi man ihtada bi hadiyihi naala huda muy dem gis nga loolu lépp ci alxuraan la ko wax yeneen xasida yépp it noonu faw mu alxuraan tagg ko alxuraan it da ko daa dénk murid yi ngir ñu fonk ko wax na ne moo tax léeg-léeg damay wax ne jàng alxuraan ab ab ab ab xaaj la ci dunduk murid bi murid bi ak dundam da cee bokk jàng alxuraan Sëñ Tuubaa moo ko digle wax ne kullu muridin bii yaluusu fal yudim tilaawatan li xayri dikrin xaduusi murid bu aju ci man digal naa la nga saxal di jàng alxuraan kay loolu ndigalu Sëñ Tuubaa la te kullu boobu la jëfandikoo yim nuy bigale xam Sëñ Tuubaa dafa bigle ba pare nag digle itam dafa dige waaye digle itam yim nu dig ci ay xéewal yoo xam ne kawe na njort bari na lool kullu muridin bi yaloosu yasaadu wa innahu min al ada mubaadu waaye kullu boobu la jëfandikoo waat wax na ci kullu muridin bi yaloosu fal yudim tilaawatan li xayri dikrin xabla shirk iqra'uhu fi leyli wa fi nahaari li watihi sirri wal jihaari wax na itam njariñi jàngal xuraan loolu lépp bindal nanu ko wax nanu ne saa yooy jàng alquran tiim di ko jàng ci kamil say jur ñi ngi leen di woyofalal seen mbugal bu fekkee ñu doon mbugal lañ doonte ay yéefar lañ sax dañ leen di bàyyi duma yi ñu leen doon duma ba nga jàng ba noppi képp koo xam ni itam yaa ngi tiim ab kaamil di jàng doo ñàkk ci bët loolu suñu tubaab wax na ko yëpp wax na ko njariñ yooyu fa kullu fi fa kullama fi mushafin qara'ata li wajhi rabbika axi xaffafta an walidayka fi umuri alqabri bi idni wax na lu bare bari ci njëriñ jàng alquran daana wax ne yow murit bi bul tong mukk alquran bul noonoog moom wut ci ab dog lu mu tuuti tuuti doonte wenn xët la dee ko jàng am na sax Sëñ Tuubaa xam nga famille tibb bi moom dafay dafay rëy moom doo xam ne donte ñetti isib la adim tilaawatan minal kitaab walaw salaasatan minal ahzaab donte ñetti isib la waaye léeg-léeg mu ne na nga ci jàng sa kem kattan moo tax kem kattan nag yëmul fenn moom waaye dina wax ne bul ko tong laa tahjuranhu watluhu muabbida wastanbitan maa shita minhu abada min al ulumi misla saalihi saraf daana tëkkoo itam ci ne képp koo xam ne ngoyul ci alquran na xam ne iblis mi ngi mooy ci moo téye loxoom moo koy womat fa man lam yakun dëhëran bihi daa tamassuki faqad qaadahu iblisu man lam yazal xibba daana wax itam na ngeen xam ne alquran moo kawe lépp dara tulluwuta moom qad faaqa kulla dikri dikrul ahadi almaliki almukarrimi almutahadi dana wax ne njubug suñu borom gi ak siraatul mustaqim mooy alquranul karim huwa alhuda wa huwa alhuda wa siraatul mustaqimu lana fa kullu man aafahu laaqa shaqaawati danaa wax itam ne képp koo xam ni xolam jubluwul alxuraan na xam ne am na juróom-ñaari bàkkaar yoo xam ne mi ngi mi ngi mi ngi boof ci xolam juróom-ñaari jikko yu bon mooy dambun wa kibrun wa israarun ala laibin xubbun li dunia atimaadun lil xaliqa kadaka dufu yaqinin mooy bàkkaar yu bari bu nekk ci ci yow boo baree bàkkaar doo doo jublu alxuraan soo nuuroo ci am pox soo nuuree ci am pox na xam ne doo jublu alxuraan sa xol bu ko adduna feesee alxuraan doo ko mën a jublu sa pas-pas bu woyofee doo mën a jublu alxuraan boo nekkee ci ay bidaa itam doo mën a jublu alxuraan juróom-ñaar yi suñu diwaat dana xam ne képp koo xam ne maanaam dëddu na alxuraan juróom-ñaar yi kese moo ko dëddaleeg alxuraan lépp luy euh, ab yool Sëñ Tuubaa nee na mi ngi ci alquran rabiha man yaabudu bil qurani munzilahu loolu wax na ci lu bëri bëri wax na itam ne jege suñ borom ak li ñuy wax fatxu al fatxul irfani mi ngi ci alquran kitaabun azizun laa yuraaxihi aabidun wa yatluuhu illaa waxtawa alfatxa walqurba fa man araada alqurba min mawlaahu falyaqra alqurana laa yansa wax na ne ngërëmul yàlla mi ngi ci alquran qultu fa man yurid rida arrahmani fa yusbitan tadabbur alquran daana digle itam ñu fonk di ko jàngale ndax bu ko kenn jàngalewul day raaf moo tax wax na moom sëñ bu mag bi ne métier bi gën métier mi gën ci métier yi mooy jàngale alquran wa afdalu nnaasi alladi taallama qurana rabbihi wa gayran allama te loolu xadis yu yonte bi la ci way wax na ne ku am doom it na nga fexe ba yóbbu ko ñu daral ko alquran ndax nee na xale bi bu ñëwee ci daara ji ñu jàngal ko bismillahi rahmaani rahim na xam ne moom ci boppam xale bi bind nañ ne kii du dugg sawara moom baraatu min min minan naar lañ ko bind du dugg sawara bàyyam du dugg sawara ay waajuram boobu du ñaari waajuram yëpp kenn du ci dugg sawara sëriñ bi ko jàngal dañ koy bindal ne ak ne moom ku set la ci sawara du dugg sawara wa xaysuma yubasmilu sabiyu fi maktabin yaktub lahu al aliyu wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min naarihi faltaxlamu loolu mooy ndigalu sëriñ bi kon ci alxuraan di gëm moom ci lu gàtt yoo ngi jégalu guddal gi sëriñ Tuubaa moom ni ñu koy waxee lu bare bari lenn lu ne jox nañ ca yoon wu leer nañ li mu digle itam jëfe rek moo ci war ku ko jëfe di nga doon murid saadix képp ko xam ne bàyyi nga fi ndigal sëriñ bi nag di nga dajeeg lu la naqare wax ne sëriñ bi wax na bind na def na lu gis te digle na kii moo ko war kat wàcc na mësul la moy mësul la fo waxam a gën waxi ku ne jëfam a gën jëfi ku ne waaye ma gën waayi ku ne waaye li dëgg nag du fo foo gis ku foo ko waaye ma waaye li dëgg dootu fo foo gis ku ne fi waaye ma mu foo ko moy xumaaga ma foo gis ku ne fi waaye ma weddil ndegam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xar xumaag a fi ruus ak ko bamba wurus wu sell la eh, waayam dërëm bu sotti la te ku amee rax yëru la raxaba ne daxa ko yàlla yàlla musal ci am po ndax bokkut ak dara ci mbirum sëñ Tuubaa wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey soññee nga si bu baax a baax bii ñu koy comme ni ñu ci appel bi ñuy waxtaan Sëriñ Tuubaa ak alxuraan di ko waxtaane ci barabu xam-xam barab boo xam dañuy wax ni gannaaw bi sëriñ bi jógee ñi fi génération bi fi njëkk a génnewaat fii la bàyyikoo kon loolu bu ci waxtaane alxuraan te mooy xam njëkk ci nit euh, kon loolu fi ñu koy defee mat na ko ñun koy waxee jar nañu wax leen ko kon kat bi daal am na solo lool te leer leer yi nga xamoon nga ci defi am na solo lool dana ñaan suñu borom tam moo defal nu ñu am dégg gi topp ko te jëfe ko it te di la suñu borom sàmm na bu baax a baax te ci am ndog jàppale bu baax kon dañuy jox sëriñ Cheikh Abdou Mbacké moom sëriñ Mame mu yëkkati ci kàddu yi bu ñu noppee nag ñu te ni moom ci jokk ne si ixaata la maanaam am bàyyiwu ci dara loo xam ne war nañ koo leeral baa ñu ko ci yokk dañ ci mën a déggee te di ko tënk mooy kon day mel ne benn murit suñu taxee suba ngoon ci jàngul alxuraan te it ku nekk war a jàpp alxuraan waaye am murit a ci raw kon loolu li ñu fi mën a déggee mën nañ ko tënk ci kàddu yooyu loolu rek lañ ci mën a wax di la sant bu baax Mbacke nag di am mbégte bu baax ci tur dayoo ci kilifteew suñu maam Thiam lañ lay sant bu baax ak dayoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si bitim réew ngeen mën a jot wala vidéo boo xam ne dugal nañ ko mën a xam li nga xam ne